Diola face à Paptine numéro 2. deuxième combat de la soirée. deuxième combat de la soirée, c'est le dimanche 18 décembre 2022. Le le promoteur Serigne Modou tête de la structure Mounia production attention Attention, attention Paptine attention Paptine Paptine Paptine Joola bu Malika ak Batine mot na ko waaw waaw na Boy Joola génn na ci Boy Joola génn na ci bëre na ba génn ci Batine Boy Joola Batine Boy Joola Boy Joola Batine Batine Boy Joola Thiès Fatou moo ñu woon ginnaaw noonu moo ngeem moo ngeem lu rouge Fatou face à Boy Diola Fatou face à Boy Diola Fatou face à Boy deuxième combat deuxième combat de la soirée aujourd'hui dimanche 18 décembre 2022 sama gars yi ñu ngi l'arène nationale le promoteur Serigne Mor Niang à la tête de la structure mu production mu Boy Diola face à Papine numéro 2 Boy Diola Papine numéro 2 Latyne numéro 2 Bojola Bojola bo ñewon ki naaw nonu mo xex ñu ci dugal ay coup dafa bëgg Fatim Sigi Bojola da fay dugal ay coup Fatim na bëgg mu bayyi bi mu waaw arbitre bi arrêté na combat bi arrêté na combat bi avertissement Patine avertissement Patine Patine bu Tivaouane Peul avertissement Patine bu Tivaouane Peul Boy Diola mi ngi taxaw Boy Diola ko ci mbel moo ko indi waaw waaw Patine su ma juumul sëñ Mbaye moo ko indi sëñ Mbaye bu Tivaouane Peul Attention au chaos Attention Attention, le Kondomba Attention, le Wadna Kondomba Paptil Wadna Kondomba Boy Jola de Pagelifi Boy la noix de Pagelifi Attention Attention Boy la patine waaw waaw mbot deuxième pied xaj na fi de mbotu deuxième pied xaj na fi Patine numéro 2 à attention Boy là, attention attention patine. attention patine. attention patine. attention Boy attention patine. attention attention donne le jëli bi rëy na jëli bi rëy na Boy Diola daan na ko waaw waaw waaw waaw waaw waaw Boy Diola daan na ko daan na Batine jël ko dem na ci course mel bëri na ba dee waaye daan na jëli bu rëy jëli bu leer jëli bu amul benn wérante Boy Diola daan na ko Boy Diola daan na ko Boy Diola daan na ko jëli bu rëy jëli bu leer jëli bu amul benn wérante noonu le vainqueur ndeysaan bëri na daan daan na daan na Pape Tine